والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والزرك والنفاق والإملاق سيدنا محمد وعاله وصحبه سوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكيب yëpp بالو ngi baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu nangul sunu koor gi ñu woor ci weer te jéggal ñu suñuy bakkar ñun ñëpp te boole ñu ci xaaj bi jëm déwén di ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamni ni mëna mën defar jëfit lepp luñ ci yaqulé ci jëf yalla nako suñu borom motalé boole ñuko ci jëfi gaay yu baax yi bis tay nak bis la bu am solo ci dundu doomu Adam rawatina ab julit te moy bis bo xamni doomu adam bi nang won na digal lu ko yàlla digaloon ba mu jëfé ko ba matal ko kon nag jëf jooju nga xam ne yàlla tegoon na ko ci ñun ba mu mat sëkk yàlla mi mën a nanguy jëf yàlla nañu ko nangul mbokk yi ñu ngi leen di xamal ni xutba bi tënk na lu baree baree bari ci sëñ bi dénkaane yu bari yoo xam ne daf koo digle ci naka la ab jullit di mel ci bis bi ak naka la ab jullit di mel bu jàllee te lépp li ko tënk du dara lu may ragal sunu borom ragal yàlla ci jëf joo ti jëf mooy li ko jiitu démb ak tey ak suba kon nag li nga xamee ni génn nañ ci weer wu sell wu màgg ba nga xam ni tënkoon nañu seytaane dafay mel ni saytaane day daal di tënkeeku kon nag nañu bàyyi xel ni lépp lu ñu doon def ci lu baax wala lépp lu ñu doon def ci jaamu yàlla na mel ni nañ ci gën a góor góorlu ak jëf yoo xam ne suñu borom daf koy tànn moo tax sëriñ bi doon wax ni mi ngi dénk di dénk boppam mbokk yépp mu ngi leen di dénk nañuy moytandiku iñaanante di ko it tàqalikoo di nonon te ci lepp lo xamni da fay jur ab yol wala fay jur ci lu bax nee tedd nga kenn mënu ko am manam wala lu bax te àndut ak ragal yalla neena tedd nga soko rek da ngay fasiyene nga am anda ak ragal yalla neena kep ko xamni jublu nga sunu borom and ak ci li nga xamni modi di jub te jub moy nga def ragal ragal yalla ko bare bare ci sa xol nee na dafa mel ni jëmee ngi jàpp nga ci buum goo xam ne si ni du dagg nag nañu fonki tuub digle na ko bu baax a baax a baax tuub bàkkaar yi jéggulu ci sunu sunu sunu sunu lépp loo xam ne ay rëcc rëcci la te moytu di génne ndiku ci lenn loo xam ne dafay waral ci làmmeñ lu lay waral jural ab bàkkaar rawatina nag ci jamono ji ñu nekk nga xam ni dafa mel ni wax lu amul dafa sax te mooy li ñuy wax wax loo xam ne du nekk jullit bu nekk war na koy moytu kon jullit yi ci jamono ji ñu nekk ñu ngi leen di digal di denk suñu bop ñu moytu lepp loy genn ci saw lamagn nang ko nat xam ba xam la cey deug nga man ko genn la ci du deug nga manu ci ndax ab julit la suñu yonante ya bi alayhi salatu wassalam waxon ni na ngeen di moytandiku di wax lu amul mais eh, da ngay wo di wax lu amul di wax lu amul di wax lu amul bañ bindal la nga wax katup lu amul mu ne bu boba lan ngay jige da ngay jige sawara te da ngay dem ba yow mi nga xamni da ngay wax lu amul da mel ni da nga dem leg leg nga deg nit ñu nan kat anamu ko wax ñu ni diw la ñu ni diw mom kat wax lu amul tax bañ bañ ko wax lu amul waxe sax deug kën du ko gëm motax mu diglé won ni na ngeen di lu ci wax deug ndax neena deug da fay wax deug day bijji jëmele ci aw yiw day bijji jëmele ci aljana ta aljana it neena na wax di deug di wax di deug day mujj nga nek wax kaatu deug nga xamni même bo waxon safan sax dañ nan ko wax deug ki moko wax kon nak nañ lu ci jamono ji ci lu mu nek ñu ko it bu baax li ñi wax ci jamono ji moy niko ko ya ali bi alayhi salaatu waxe won wala sunu borom digal nu ko te fonk sunu wajur liñ ci jublu nag waxuñu ndax nit ku ne man na fonki wajur waye fonki wajuri yi tax manam ba lepp loy yëkëti di tek ci say wajur wajuru jàmbur nga xamni tek nga ko ci wajuru tek nga ko ci say wajur yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni na ngeen ni moytu di ngagn seeni wajur, ñu ni ana nan lañuy defé di ngagn suñu wajur mu ni ngeen ni ngagn wajuru jamburi manam sa boy ngagn wajuru ŋàññi rek baat bo yëkëti tek ko ko rek na la wóor ni ŋàññi nga say waajur te yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ni loolu dafay waral mbugalum sawara kon fi jamono toll nga xam ni wax ji ñaaw na lool jëf yi ñaaw ci yu bare bare bari ci dem lente beeg fekk lente bi xastante bi ci media bi ci yu bare bari nañu koy moytu ndax lépp looy teg ci waajur sa waajuru rek waajuru jàmbur rek yaa ngi koy teg ci sa waajur kon nañu ko nañu ko nañu ko nañu ko nañu ko moytandiku bu baax a baax te góor góorlu ci lépp loo xam ni dafay jublu ci sunu boroom ndax niñ ko waxe woon fii rek adduna moom kenn ku ne mën ngaa xool kala meññ sa ñetti maam yi yàlla yàlla jiitu rek kenn nekkatu fi di dox te ala kulli da nga leen di fekk kon nag na nga góorgóorlu ci xam ni jëf lu baax nekk ci lu baax loolu rek moo am solo te ñu wëlbati ko it fonk ñi nga xam ne ni ko sëriñ bi bëggee ginnaaw dañu toolam bi alquranul karim moo di toolam bu fekkonte ni dafay wax ni am na tool alquran moo di toolam ñun ñi ngi leen di dénk yéen mbokk yépp ngeen jël seen doom yi gën leen a xirtal ci ñu dem jàngi alquranul karim te ñeri jàngal alquranul karim it ngeen def leen ñu ay sang ci yéen topp maanaam daara maanaam bu tax na Tuubaa fii dañoo xam ne ab usine la alquranul karim mooy usine bi maanaam ñi fiy jàngale alquranul karim kenn gënu leen a jige sëñ Tuubaa bu sëñ Tuubaa ñëwoon it yaakaar naa di di seet ñu muy nekkal ak ñu muy dalat ñu lay dem seeti mooy jàngalekati alquranul karim yi kon nag mbokk yi nañ leen góor góorgóorlu ñoom de yayoo nañoo jox lu ne yayoo nañoo am am lu ne yayoo nañoo nekk fu ne ndax ñoo nekk ci li gënal sëriñ Tuubaa kon nañ leen góor bu baax a baax te yar xale yi jàngal leen alxuraanul karim ndax dënn bu mu jiitu dafay mel ni boo fa bëggee def leen dana yomb te suñu réew mi ni mu mel nga xam ni xastante bi saagante bi lekk lu warul lekk riba ni ñu koy waxee ak yeneen ak yeneen du may dara lu may ak ragal ñàkk ragal yàlla la rek waaye bu alxuraan jiitoo ne ko sëriñ daa bëgge woon ñu jàngal leen fexe ba bu ëllëgee ingénieur bi wala avocat bi wala ku man di doon day wàcc maanaam ci minbar bi atte ba noppi dem ci doon imam nga xam ne ak ragal yàlla dana jiitu ci moom dana man di liggéey nekk mécanicien wala mu liggéey leneen fekk alxuraan yi dugg na ci xolam bu baax lañ lañ koy mane nag mooy jullit ñu góor góorlu ba liy fëkkee ba a fëkk sunu njaboot ñu gaaw yóbbu leen ci ñu jànge alxuraan jàngal leen diine ndax kat ëllëg kenn ku ne ab sàmm nga te danañ la laaj lan nga doon sàmm fexe na ba bañ la laaj lan nga doon sàmm ci njaboot gi lan nga doon sàmm ci kër ga lan nga doon sàmm amoo lenn loo ca mën a layal su boobaa sa doom mën naa taxaw yey la kon nag na nga góorlu bu baax a baax a baax ci ñu jubbantiku jubbanti njaboot gi fas leen a jëmale ci li sëriñ bi bëgg te li sëriñ bi bëggit mooy ñu fexe ba jàngal leen alquranul karim tayit bañ di jëfëndiko dara ci lu du àndut ak digal ndax ki fi ne yalla na suñu borom yagal te moy serigne muntaha al basir yalla na fi suñu borom yagal lol te ànd ak wër kep ku muy sa kilifa war gor góorgóorlu ci baax war gor góorgóorlu ci nango jëf wala góorgóorloo ci nango jaamu yalla waye wala góorgóorloo ci nopi mom day lu mu jox sëñ touba doyu bu xeye di joxe ba jant so di ligel sëñ touba bo xolé jëm ji day mel ku beesaat tek ci lor ko kon nag kum nekk sa kilifa nanga nga góorgóorlu bu baax a baax a baax ba lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci lu baax nga bañ koo nga bañ koo nga bañ koo néewal te góorgóorlu ci bu baax ñi ngi ñaan yàlla noonu suñu borom jéggal suñu bàkkaar yëpp di it ñi nga xam ne ñooy kilifa yi te teew ci jataay bi buñ ci tuddee sëriñ Aafiya ak sëriñ Fallu sëriñ Jasaaka jenn moom sëriñ Abdou Latif jenn ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne si ñoo fi nekk di ziar ñi nga xam ni ñoo fi nekk di sëriñ daar yi nga xam ne ñoo doon taxawee liggéey bi ak imaam yeeg ñëpp di leen baalu àq di leen jéggal di jéggalu ñaan ngeen jéggal nu suñuy rëcc rëcc ci yéen ba muy dëkk rëq-rëq dëkkandoo barkeb Sëriñ Tuba wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amin amin amin sëñ Fallu nee na amin yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga fi yàgg yu bëri amin amin na nga fi leneen amin amin yàlla na nga fi yàgg amin amin amin